Guy Marius Sagna Assane démb fa mu nekk ci assemblée nationale posé na ay question ki nga xam ne mooy ministre bi jiite finance wax na ko nag lu jëm ci wàllu la ak benn entreprise boo xam ne gisoon nañ ko foofu ñu baaloon ko ci wàllum fisc lu tolloog ci cent trente milliards. nee na nag loolu daal mi ngi posé ay question di wax te ci jamono jooju at moomu moom euh, entreprise boobu gagné na fa lu tolloog trois cent milliards ci wàllum xaalis muy laaj nag état bu Sénégal ñu indil ko ci ay leeral loolu yi ñu baal entreprise boobu. waaw xanaa mu sàkku rek ñu dem balante ko baal googu ñu baal ñu baalantiwaat ko ñu nanguwaat ko. Hmm? ma ne mu sàkku. Hmm? loolee ñu baloon société boobu ñu nanguwaat ko. li ñu waaw loolu la ñu war a waaw. waaw loolu du yoon ndax euh, réew mi fi mu toll nii société yu bari daanu li leen daane mooy fay lemp bi léegi. mënatuñ ko wala lu ñu dugal ci dëkk bi mu jafe. ba ah. mënatuñ ko. Ah. ñëpp a daanu. Mm-hmm. ndax taral goo xamante ni taral nañ ko jëmale ko ci ñoom mënatuñ. Mm-hmm. léegi nag ñooñu bu fekkee ne ay jàmbur ñëw nañ fi ji am fi ay milliards ba pare nga milliards ñu war a na bàyyee ñun ñu war koo ndoqal ko ngeen yóbbaale leen ko. Mm-hmm. wax dëgg yàlla loolu metti na torop kon daal bépp président boo xamante ni moo xam bi fi nekk bu dee continuer moo xam beneen buy ñëw. société boobu na ko leer ne loolu ñu ko baaloon dafa am ku moo ko baal waaye ñun baalaguñ ko ko te nañ ko dinañ ñëwaat ñu waxtaanaat si xool ba xam lu ñu ko si mën a baal ak lu ñu ko si mënta baal. Hmm. Hmm. kon daal ñu nangu joxaat xaalis bi. incha allah. waaw mais du xaalis bu ñu ko joxoon nag ay la de. waaw fisc yi mën naa ñëwaat 2022 la woon de. waaw 2022. 2022 baax na ñii euh, kii mi euh, Aly Ngouille Ndiaye mi li defoon nii kañ la woon 2000 lan. kan li ñu leen tuumaal 2000 lan la woon. li ñu waa ji. Hmm. yàgg na. waaw. kon yàgg du tee ñu lijjanti na xaalis bi ñëwaat. na milliards dugg. waaw na ñëwaat dañ ko soxla. alaaji waaw ca 2022 de la mbir yi xewoon lu tolloog 136 milliards euh, moom nag génne na ko moom député boobule ni ko bëcc ci assemblée national ginaaw ba fa ministre des finances ñëwee ñu nag daal mi ngi sàkk état bu Sénégal lu tax ñu baale fisc yooyu la waaw xam nga macha allah liggéey boobu liggéey bu am solo la xam nga gi euh, dafa am loo xamante ni xam nga baal dafa bëri ay form waaw jéggal nañ la loolu mooy kayit gi waaw ki nga xamante ni gi moom lañ koy ne kii baal nañ ko mm-hmm. ci koo xam ne gagné na plus de trois cent ñaata milliards nga wax trois cent milliards ci at moomu ci at am na bénéfice trois cent milliards mm-hmm. nga baal ko mm-hmm. léegi dañ naan ndax baal la mm. wala baal gi moom mooy lii fes Hmm. way ndax dafa nekk ni sama baal naa asan hmm. ñaar fukki junni yi nga xam ne moom la ma asan ñu waroon a fay loolu xaalis bi ñun ñoo ko bokk man ak yow baal naa asan ñaar fukki junni hmm. ñu ko baal ah. bu ñu génnee asan jox ma fukki junni <coughs> yaa ngi dégg yow moom nga ne ah waaw baal nañ ko de baal nañ lii moom dañoo baaloon di ne dañ koo baaloon <laughs> këyit boo buggee ne ma ne dañ koo baaloon ah. waaye nag après foofu la Guy Marius Sagna di di waxee quoi voilà ji voilà ñaar fukki junni yi bokk ñu bokk baal ko Assane fekk yow baal gi nee nga woon bu ma baal la sama fukki junni waaw ma la baal c'est foofu la Guy Marius Sagna di waxee quoi <laughs> moo tax baal gi baal la wala du kii c'est que paren il faut nit ñi xam ne àddina bi moom façon yu mel noonu nag day am waaw. <laughs> yaa xalaatee foofu rek. addeet ah, façon baal la waaw xam nga baal moom entreprise. lamp yi tàkk. waaw euh, kii bi euh, naka. Euh, personnel bi. Mhm. fisc yi affaire yi bari ñun la baal nañ la ko. waaw baal nañ la ko. waaye waaye ñu ko baal dafa am bénéfice xam nga boobu moo jaaxal nit ñi xam bu doon dafa perte ñooñu nañ ko jéggal dañ naan ah gouvernement bi dafa bañ employé kii am ay jafe moo tax mu ne nañ ko jéggal pour mu souffler waaye ku gagné trois cent milliards. Hmm. bénéfice am ko ñu ne baal nañ la baal boobu ci lu mu tegu moo tax nit ñi dañuy poser question ne baal bi est du. man ak sony bu mii kat dañoo bokk li Assane yoreel ñu bor ma ne ko baal nañ la ñaar fukki junni yii Assane Mesere ne la dégg nga de dañ koo baal gare waaw dañ koo baal jaar di ci suuf Assane ñëw jox ma fukki junni moom Assane gañe na gañe na léegi yow nga ah, dañ koo baaloon atum sàngam boo ximmilikoo nag xam ni <laughs> nga yaakaar ni ko baaloon bu ñu leen woowaat gaa yi ko séqoon baale ah en tout cas daal baal gi daal li mu wax nañ ko ci indil ay leeral rek waaw dañ ko baal baal kañ moom këyitu baal kañ am na waaye këyitu baal googu la Guy Marius Sagna di poser question question hmm. yooyu nag dañ ko re parce que li nit ñi di xalaat rek foofu la poser question xalaat yi nga xamante ni moo ne ci suuf ndax baal bi baal la waa ilaa dafa am leneen loolu nag des na ci ñoom ñu gën a firndeel lool fan lañ teg raison pour baal ko loolu la leen laaj nag parce que ku am bénéfice trois cent milliards. Hmm. foo teg raison pour baal ko. bu doon dafa am nekk ci crise ñu ne ah lii de dafa xew xam nga te toog nañ benn kii ñu ne corona beeg affaire yooyu ñu jéggal ñu bari. Mhm. c'est parce que xam nañ ay difficulté am na. waaw waa loolu raison la pour nga jéggal ay kii daal leen may ñu suufle parce que sinon mën nañ am ñàkk emploi mais ñu def bénéfice bu dee dëgg dañoo def bénéfice moom. Mhm. baal boobu war sa ne. d'accord kon donc bu ñu leen baalee rek. waaw boobu question ay question day ñëw quoi maanaam léegi léegi da ngay ba mu mel ni loolu kii la waaye man naa bañ a demee noonu non mais loolu mooy li waaw yow yaa ko gisee noonu non non <laughs> ñoo ñun ñëpp ko gisee parce que alaajo da ngay xalaat loo gars yi rek ah di xalaat loo ba gars yi di ba ministre ministre des finance bu fekkee ni nee nañ moo ko baal waaw ah waaw société bi est xam nga lu mu yanoon ba ñu baal ko waaw no mais da société bi li mu yéen woon yëpp soo néew ci xam nga nga bénéfice bi nga ne moom la def dañ ne def ne bénéfice trois cent milliards walla waroon a fay cent trente six milliards du fay est-ce que jamono boobu nekkuloon ci crise euh, def bénéfice trois cent milliards rek <laughs> day saboté wala wala da ni mu def bénéfice non alaa yow yaa war a bàyyi di xalaat ah, loolu gaay Guy Marius lii nga wax Guy lii kañ man du man Guy mari Sagna moom moo xalaat loo nit ñi parce que question yi mu posé dafa pertinent question yu pertinent la posé laaj waaw yow yaa fi nekk naan non su fekkee ne daal kayit yi Guy mari Sagna yor wër na hmm. ne ñii la yëf yi demee nii mu ko laajee kon donc nag ay réponse dafa war a am ay tontu yoo xamante ni bi dafa war a am ci li nga xam ni moom la wax hmm. mais en tout cas parce que nit moom bu ñu la waxee automatiquement rek sa xel ci li mu war a dem mooy ku def bénéfice nan lañ ko mën a jéggalee léegi nag loolu mooy indi mbaadu baat yooyu mooy son yi bu man ak moom bokk nañ ñaar fukki junni yi Assane war ñoo fay man ne non son yi nañ ko baal. nuñ mm-hmm. baal Assane. Mm-hmm. fekk man jaar naa cug après Assane dama jox fukki junni. <laughs> waaw loolu man loolu laa la <laughs> yow xalaat la waaw loolu. <laughs> loolu nekk moom. nañ ko baal nañ ko baal joxante ni nañ ko baal kay sooy bi nag nga gis dégg nga jox ko nañ ko baal xam nga parce nga gis ci commentaire Facebook yi wala TikTok yi ñu naan am na ci yenn ministre yoo xam ne noonu la amee xaalis ak des nga gis yoo xam nga ma ministre yi ministre yi bu passé privilège yi ñuy am wala bu passé seen seen salaire yi mm-hmm. man gëw ma loolu commentaire yooyu ñu wax ci internet bi naan mm-hmm. des fois gis ministre yoo xam noonu la amee xaalis ak dafa am lu ñuy baale baale googu dafa am ay revenu yu ñu ci amaat ak mm-hmm. loolu amut même même kii président Macky Sall ñu yóbbu la wutal la kii da ngay mën ngaa fay boo na ngoo génnee taabal teg boo tegee xaalis mën nañ laa yóbbu wutal la audience nga dem toog waxtaan ak moom wala nga gis benn marché boo bëgg a gañee nga lijjanti ko mm. wala nga gis benn suuf suuf soo ñun la boole nañ la ak diw nga dem waxtaan ak diw wala nga bëgg a teg fenn sa place ñu lay yëkkati yooyu yëpp ay lijjanti la rek réew mi il faut ngay lijjanti. lijjanti boo lijjanti ku dégg doo lijjanti. Hmm. ndaw ne noonu na kuy lijjanti ku nekk yaa ngi lijjal. ah <laughs> yaa ngi lijjal. waaw ah, ñii bañu ñoo lijjal di ñu ah, ñoo lijjal <laughs> ñoom. ay